ba tey ci seen scandale du jour kii di Gabrielle Kane démb dañ daal di lancer plainte euh, jëmale ko ci jëmmam ñu déglu ji kàddu yi Ameth Ndoye yëkkati. Ah, eh, fi fi li ma toog yëpp bi ngeen wax maa ngi koy maa koy bind message. Euh, pour pour voir exactement les les convocations les tenants et les aboutissants lan motif de convocation parce que d'habitude convocation est d'un motif mm-hmm. euh, li en tout cas bett ko mm-hmm. Euh, mm-hmm. xamoon na ko Sénégal du elle m'a dit récemment que parce que man dama ko don wax pour aider à la fois le Sénégal mais pour aider ce gouvernement euh, il faut qu'il y ait une opposition dans l'intérêt de bien faire et d'aider les gouvernants. Il faut qu'on gagne Elle m'a dit que mom, elle préfère, euh, comme mom de la liberté et démocratie, elle préfère que les Sénégalais fassent un choix, que les sénégalais ak choix à lu ah man aussi j'accepte mais dal suma ma ngeen ngeen wax parce que chacun a son mot à dire dans les affaires publiques ñoko bok mon elle préfère pas son choix mooy respecter le choix des Sénégalais après quelques jours normalement yow sa nga wax ah je pas arrêter comme aussi j'ai respecté son choix respecte le mien voilà donc bi ma waxé lolu si la ma annoncé waalee hmm. elle a eu des informations que wax nañ ko ne xawma kan mais mom elle va payer elle va payer très cher ah lim doon def peut-être xamna mo waral mu bind texte bi né si c'était à refaire je vais le refaire si seulement si je dois payer je vais prendre toutes mes responsabilités xamna peut-être lolu mo wax parce que lolu la mo wax motamo hmm. né ma wax nañ ko né diriger actuellement wax nañ benn nit boo xamante ne jege na leen ko. ay ca ay ca rek ay ca rek <laughs> euh, xam nga barki démb ba demoon lépp mu ne président Diomaye day jël yenn décision moom moo koy tempérer damay ragal c'est le contraire. Gabriel Kane yàllaa fi ne yàlla moo fi ne keneen newu fi ku dul yàlla prison bi ku fa yàlla tuddal say fan di nga fa dem. bu fa yàlla tuddul say fan xolal na àdduna booloo kera yàlla doo dugg yàllaa fi nekk kocc dong kankotan moom kese kon nag nañu xaar mbirum yàlla te nag ahaa lii raam si ñag li la jëm waaye mu ngi dugg ci kër yi ay ca rek ay ca dina leer ay rek ay rek nañ dem rek.